Sonaara ku ne xam na ni bu subaa la Lac Rose wala jàkkaarloo ak Quench loolu lu jar seet la lu jar wax la. sëñ Bour. Mhm. ki ñu tuddee Quench. Mhm. bëri nañu ko jox boobu. Mhm. bëri nañu koy gerle. kii di Lac Rose. bëri nañu koy xeex. waaye li ma la giñal dawaatal la ko mooy. ndam yàllaa ko yor. te moom rek mooy maye ndam. Mhm. ñu jàll ci leneen. ñu jàll ci leneen soxna la Ousmane Sonko le 8 procès contre Mame Mbaye Niang le digganteem ak Adji Sarr soxna dafa ni yëpp mu ngi insisté coow li jeexagul coow li jeexagul day soog a tàmbale coow li jeexagul day soog a tàmbale. li ma sekkoon ak yow sëñ Mbour mooy lu ma la ci joxañ nga dem ba daj ko. Mhm. du dëgg. Mhm. te yaakaar naa ci li nga ma laaj lépp li ma la ci tontu leer na. procès yi nga ci xaar woon yëpp gis nga leen. ak seen dat yi. Mhm. waaw witti gi lu mu lay jox sëñ buur. witti witti gi de chiffre juróom-ñett juróom-ñett man loolu ma jaaxal chiffre mystique la muy nduru de. non maki ku garaaw la amul. jërëjëf mbokk internet ya a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen jotaayu xam-xam kan lañu fi dala sonaara seexu yàlla bi sonaara boroom seet yu doy waar yi macha allah sonaara borom nopp yi boroom sa sangootu ubbeeku yi sonaara boroom sungu fu pël sonaara buur nuyu ne la soxna si daa mel na ngaa dikkale <laughs> wala ngaa sonn. alhamdulilah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa naawuzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalinas wasalaatu wasalaamu ala nabiyal muxtada alxaayil sëñ buur maa ngi leen di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay soxna si ka namul sëñ ma la tey mën a tekk la <laughs> ay gaa ñëw rek ni nga passé sa kanam gaa yi tamit duñ la bàyyi ba ma pare nag ak yow tuuti boog ñu soog a avancé soxnaa dem euh, fi may njëkkee ak yow ah mooy ku ne xam na ni combat bu am solo dafa am suba war a dox ci diggante Quench ak Lac Rose Lac Rose jóge ci ay tolof tolofan sincèrement euh, Quench moom tamit am fu mu jógee euh, combat boobu doy na waar de sonaa la mystiquement. sëñ Bour. Mhm. kii di Quench. Mhm. dafa bëri ñu koy geeral. ñu koy sotle quoi ñu koy sotle. Mhm. ci gàllaaj ci xalaat ak ci xel. waaye kii di Lac Rose. dafa bëri actuellement ñi koy xeex te ñi koy xeex ay góor ci hmm. te li gën a mitti mooy ñi koy xeex bëri nañ sax ñoo xamante ni duru nañ ko ko jox boobu fekk sori nañ ko hmm. lii xew nag ëllëg suba wamaa yàlla mu rëy bi ilallah hmm. lii xew suba kumpala te suñu borom képp a ko xam moom mooy mbay ndam waaw ku may ndam rek nga am ndam waaye gis ngeen daal Quench fi mu taxaw na ci wàllu gàllaaj bëri nañu koy xeexal gàllaaj nag nit da koy am dem ba ci bis bi muy dugg ci làmb ji. carte gi tourné. Mm-hmm. ndax ku ne xam na ni tey foo génnee saraxu bëy mm-hmm. gis ku fa génnee bu gileem romb na lay dem. d'accord lii nga xamante ne mooy xam-xamu kurus tam lu mu song daan ko. Mm-hmm. ndax jamono goo kurusee ni dëgg dëgg dëgg te mën wér dëgg. borom kurus yi xam nañ li may wax bu boobaa loo bëgg a soppi di nga ko soppi. Sonaada booba tey mu ngi insister di def ay révélation Sonaada bokk na ci nit ki ñu fi njëkk révélé ni mag Sall dina am ñu ko war ñu bari bari bari ñu ko war dellusiwaat ci problème Ousmane son keroog ba ñu àttee ngeen jeexagul xaajagul ba démb suñu émission bi mu jëlee barki démb da ni am na leen luy xeeñaat coow digganteem ak Adji sax mooy gën a garaaw ci guddi ga ñu jàpp date bi ne jàpp nañu àtte Ousmane Sonko ak Adji te boobu bi ko sonaari di wax yëgeewu ko fenn waaye luñ ko wanoon lu mu gis ko ci maanaam ci seet. sëñ Bour. sunu borom moom mooy ki nga xamante ne mm. euh, dafa am histoire boo nga xamante dafay am. Mm. jamono bu amee xam-xam a koy seet waaye du xel mu dal du xel mu moo nga xamante ni day tatu tatone mm-hmm. Sonaare li mu yor mbiru maamam la foofu ci waaye kii di Ousmane Sonko ay mbiram léegi dama cee bëgg gën a tey mm-hmm. ndax la ndax sama client yu bari dañ may woo mm-hmm. defe ni damay xeex Sonko <coughs> te li nga gis rek nga yow leer na la leer yàlla ni man awma ku may farara mais li ngay gis kay au contraire ñoom dañ ci waroon a jariñu mm, dañ ci waroon a jariñu sax profité ci am na ci koo xamante ni moom nee na ma démb mm. dama lay woo fan yëpp jotoo jotuma la ndax xaj na dangaa am foo féete ci nguur gi di leen ñaanal moo tax mm, ah xaj na dangaa bëgg a xeex Sonko moo tax sonaare dama laa seetaan ba muy waaj a jeex ma kuppe la ndax dama laa mere ba ma déggee li nga wax ci côté Macky ak Sonko mu mel ni dangay farfarloo daa am foo ak noddu googu ñuy noddu mm. Soxna Ada amul fu muy far wax dëgg yàlla nag xol boo gis ci àdduna buy mm. bëgg benn rek la mën a bëgg mm-hmm. waaye suñu borom suturaal na ma ci ñiy politique Soxna Ada bëggantewul ak ñoom Soxna Ada li mu gis rek lay wax li gis rek te Soxna Ada moom li mu gis moom bu ko xasee ba wax yàgg-yàgg des tëg bët waaye damaa bëgg Sonko mu gën a dal gën a tey rek ndax amaana dal geeg tey gi dina ko dimbali ci lu bëri mm. nguur kuy xeex ak ñoom faaw nga dal. waaw man li ma gën soxna Ada huit procès bi le huit la moom Mame Mbaye Niang ñu dawalaat huit jours mu war a jàkkaarloog Adji Sarr sa gars seetuñu ko ci baatin ba noppi soog ko attaqué. sëñ Bour Macky li mu yor romb na loolu guddi yi ñu toll boroom xam-xam yu ci bëri dañu mbir mi kaaka géeme ni lu ëlbati borom xam-xam yu bëree hmm. bëri guddi yi ñu toll Macky lañ jox bopp. kilifa yu bëri guddi yi ñu toll Macky lañ jox bopp. Sonko duma ne amul ay ñaankatu yàlla. Hmm. am na ay ñaankatu yàlla. am na gàllaaj sax moo tax mu toog bërëb bi di dem ak ñëw di ko nettali. Hmm. waaye Macky ñi ko wër ñëpp ay kàng fóore lañ. te kàng fóore heure bu demee bay dóore rek. nga gis lu yéeme ndax di nga gis mbir mbir xew hmm. politique bi fiñ ci toll nii wor wor yi dina bëri te dama seen lu rëy lu war a ñëw hmm. bu ko ay kilifa fànkul Macky Sall day toog troisième mandat te day bëri néew lool yu ñuy jàllale waaw parce que man dem bi ma ñëwee nee nga ma sëñ buur li ma jaaxal dama seen Macky Sall mu toog ci seesu nguur ñu jël ay néew sàng leen di leen jàllale sama kanam loolu wax ma ko dem. te boo maytuwul néew yi Macky Sall nga xamante ne dina ko waral muy troisième mandat. Mm-hmm. bu maytuwul ñu ko jege dina ci am ñu dem. Mm-hmm. maa bëgg nga bàyyee loolu xel bu baax. man kay say wax duma ko duma ko lam laa ñaan nag day fanq lu bëri. Mm-hmm. saraxit day fanq lu bari li xew ëllëg. sunu borom képp a ko xam. Mhm. waaye sunu borom lim ma wan. Mhm. troisième mandat Macky dina bëri néew. te man de boobu ba tey ni nga ci insister man lu mat trois mois ngi quatre même wax bi nga may waxtu su ma waxee nga ne ma su ma gisoon leneen nii laa koy waxee. sëñ buur sama ceeb Macky joxuma ko. Mhm. lii nii nag sama ceeb jugewul ci Macky. soxna Ada li muy am toujours moo ko ñaqal boppam nii. bi mu ñamee jëkkër la xam sax. ñuy mm-hmm. dépense wàcc ko ñu jël ak la cay dem mm-hmm. mais Macky yorut sama dara Sonko yorut sama dara kon li ma gis rek laay wax léegi soo def dëgg bi fi mel ni tiit nañu waaw mm-hmm. tey ku bëgg muccal sa bopp ci wàllu kaaraange muccal sa alal waaye muccal tamit aussi sag njaboot seen buur maa ngi bant yoo nga xamante jamono jii ñëpp a koy wër si su ma ci dee dese it li ma ciy dese du bëri mhm. lu may wuti waat lay doon rek est sax mhm. gis nga bant yooyu soxna Aada moo ko joxe bant yooyu képp koo nga xamante ni defal nañ la ko cëwli mhm. ba cëwli mooy téere yooyu di lang waaw ba nga tax ko ci sa ndigg bin lazi nafsi Muhammad yadi bakkan Muhammad laa la giñal doomu aadama dootu la jéemal dara ci kaw suuf ba teg ci bëtam mooy li nga nii bu dee danga koo jël bant bi du ko soccoo mhm. boo tasee noon bu lay fexee du ko nettali ndax du la tal ci leneen mhm. lay nekk mhm. barke yonantu yàlla Muhammad loolu benn la ci wàllu kaaraange loolu benn la ci wàllu kaaraange sëñ buur maa ngi xaatim yoo nga xamante ni boo ko sangoo fukki puso ak benn nga koy booleel onze puso onze puso waa mhm. boo ko xësee ba sangoo lu jugewul ca sunu borom mhm. lu jugewul ca sunu borom jarul nga koy tàllal mhm. lu jugewul ca sunu borom mënul ci yow dara li ñaan blende moom ngay daal di def onze puso ciy dem nga sangoo xaatim bi xaatim bi doo ko sangoo lu dul ñetti fan trois jours kese sunu borom muccal la aar la sàmm la làq la fa yàq yeggu sëñ buur lii maa koy fàtte sax. yow fas yaa ngi yow. fas yi li ma ci defoon. sonaare fas yi fas yi fas yi gars yi bëgg nañ ko de. ci awra ku góor ki lay dugg nga yëg sa bopp mu yëg boppam. lu ngeen dundati mu neex loo ko laaj mu jox la. ay waay fas gaa ngi waay. loo ko laaj dina dina ko wër ji te bu ko amul na ko sàcc. so ñu garaaw ci fas yi. daa mel ni gars yi fas gi lañ gën a bëgg ah ma loolu jaaxal na ma. nga ñëw di fi fekk benn fas. waaw muus mi dama koo <laughs> xaw ma ku laalul ci fas yi waaye jigéen ñaa ngi jeexal fas yi. ah fas yi kat jooni jooni la xamul fas yi sëñ buur jigéen da koy jël góor da koy jël mais fi ne jigéen ñoo njëkk góor ñi. ah. ngir bëgg a ci wàllum noot la ak déggoo rek dafa ànd bëgg ak yërëm. Mhm. ñaar yi bu ci dem rek sëy amatu fa. dëgg la. sunu borom dañuy askinu xun na xay sakatu min wujdiku. Mhm. wala tudayyifuhunna li tudayyi'a alayhinna hattaa yada'na hablahunna mhm. donc alxuraan dafa ni boo amee tay soxna mhm. na nga koy toppatoo di ko wutal dëkkuwaay mhm. di ko jox lépp lu koy bégal bu ko bàyyi muy mel ni ku wéradi wala mu amee dépression lu jigéen di am na ko am bu ca sa doole tolloo bu lee leen bàyyi ñuy xat-xatloo te yi li muy régler ci situation yi maara day taali léegi léeg nga am góoru kilifa goo nga xam ne dafa ñeme bi mel ni señ buur am ñeenti jeegam ah waay déet waay soxna leen a boole ci benn kër <laughs> fas yi day tàqale dëgg caaxaan ndax boo ko amee ba utiliser ko sawar ci àdduna noo kër sax mën na la ko may barke yonentu hmm? yàlla loo wax mu ne waaw barke yonentu yàlla Muhammad loo ko laaj te amu ko da koy wëri ba keroog muy dajeeg moom indi la ko est-ce que loolu du ma ci du ma ci fen te du ma ci gëñee sang-sang yi sonaada xam nga nag gars yi lan la ñu réclamé nee nañ soxna Aada dafa gëj ànd ak buur dem ca xàmb ya gars yi moom ñu ngi koy réclamer fan yi sëñ buur mm-hmm. jamono ngi ñëw ñoom xàmb ya sa dootul nekkati seen problème mm-hmm. ndax bu yàlla dogalee sanc bi may sanc ma sanc mm-hmm. lii di toj liggéey lii di seytaane lii di rab lii di yàq-yàq lu mu ci doon ku mu tàbbi ci say rab ak ñàkk soo ñëwee soxna aada tàqale ko yow. kon waaw waaw xam loolu dama ko fàtte wax. soxna aada dafay mu ngi ci préparation. Mm-hmm. pour toxu alhamdulilahi la ñuy wax euh, dem fële ci dëkkuwaay bi nga xam ne moom moo nekk fii rek ci ci village yeggul sax village. océan waaw di bërëb boo xam ne vraiment soxna si lim ci jublu rek. Mm-hmm. mooy gën a am espace bu mu liggéeyee. nga xam ni problème bu fa waay mën a indi wala jàngoro bu fa waay mën a indi boo ñëwee di nga mën a gis ak soxna aada ci sutura waxtaan ak moom ci sutura su jaree sang foofu la lay sange bu jaree faj tojtal yenn mbir yi yëpp foofu la koy defee ndax ay xàmbam la am lu mu ca yëkkati indi ko foofu ngir soxlay jàmm yi soxna nag li ma naan wax rek chaque jour Euh, ku am ñëwal ku amul ñëwal ndax li muy def def ci jihaat rek fi sabilillah euh, ku mën a jàppale dina la jàppale te yàlla rek tax waaye ku mu jëflante doo ko rëccu ndax sonaada këram la ne euh, li ma leen wax nee man buur maa leen xamale ak sonaada booba léegi ëpp naa at maa ngi ciy sant yàlla di ci julli ci bi ndax amaguma ci moom retour bu bu ñaaw wala retour boo xamante ne que neexuma mu ngi fi mu dëkkoon dëkkul fii tey suba mu dëkk fa la mu ngi fi mu dëkkoon euh, di def li muy def ñi mu daan séqal dem nañu ba yaayoo ko ñii magoon nañ ko ñi ko mat yaay doomoon nañu ko ci jikkoom ju baax ak bu rafet ginnaaw or liggéey bi bu la xasee ba jàpp jàpp na la kon soxna looy tàggoo yaay Fall. sëñ bu di wax rek ñu leen. soxnaa da bu fekkante ne daa jaboot jaboot gi yaar ku ne yaayoo liggéey am na fu muy toll fa nga dëkkoon dootoo fa xaj mm-hmm. da dem fu gën a yaatu mm-hmm. di leen wax ni lépp lu ngeen di soxla ca xàmb ya soxna Ada dina ko def ci kër gi mu nekk mm-hmm. te bu soobee yàlla yonant bi àdduna du ko am rek ngay dimbali ndax nag liggéeyal yàlla dafa bëri façon tuminuuna billaahi wali rasul watu jaahiduna fi sabilillah bi am waalikum wa anfusikum kon lii day nekk ci alal lii nekk ci bakkan parce que dafay am loo nga xamante ni boo koy géral nit ki yërmande da cee war a tàbbi hmm. sonaada mi ngi liggéeyal yàlla liggéey bu am solo liggéey boo xam du lu ñuy wax lu ñuy jëf la hmm. sonaada ki am ak ki ñàkk yëpp lay composé ñëw leen soxna aada ku ci nekk sa poos fam toll bu xoolee lim la ci mënal dina la hmm. dimbali li wajihillaahi taala kon boobu wa axiru dawaan an alhamdulilah wa rahmatullah sëñ buur